engagement seen disponibilité pour la cause de lislaam fay ñu ni maata muhammadun loolu la ñu wax sallallahu alayhi wa sallam tiit ñi gëmoon ñoom jaxasoo yàlla wàcce benn aaya wa ma muhammadun illa rasulun qad xalat min qablihi ar rusul yonent yàlla muhammad sama jaam la man maay borom geer bi maay borom xale bi maay borom nit ñi maay borom muhammad su fekkee ni da ngeen ni dem na seen seen seen seen armée bi nar a tasaaroo défaite puissante wàcc ci seen kaw ndax ndax guerre psychologie la tout d'abord waaw ngeen bëgg tax ngeen bëgg a xañ nit ñi li nga xam ni mooy seen ngëm ndax su ngeen ne wëriñ wan Muhammad gannaaw wala wan keneen gannaaw dana xëy na dana ko lor waaye man yàlla ku ni wëriñ wan ma gannaaw est-ce que dana ma lor afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum kon nag nee na demug yonent yàlla Muhammad taxul terewul diina ji nekk fi maam Alaaji Malik anam mhm. radiallahu anhu ana Sidi Ahmed si ana Cheikh Seydi Aboubacar si ana Cheikh Alhaaji Mansour mi nga xam ni le 25 mars le 29 mars 1957 quatre jours seen diggante ana Alhaaji Abdoul Aziz donte le def na fi ñeent fukki at yàlla yóbbu na ko lu jiitu muy dem bàyyi Alhaaji Habib dem na Serigne Moustapha wuy ji boroomam Serigne Mansour nekk na fi ay at dem sëriñ abdullah sëriñ cheikh tidiane kazalik sëriñ abdul aziz al amin mu baax ma lisaanul xadrati dem ñu ni deet waaye bu yàggul sëñ Pape Malick dem ak yeneen kilifay diine ci biir Sénégal mm-hmm. waaye diine di diine l'islam di l'islam yàlla di yàlla ti du fi jóge <laughs> loolu nag yan la ci kaw loosu sëriñ Babacar Mansour moo tax muy interpeller ñëpp seen conscience ak seen intelligence ak seen force financière matérielle psychologique sociologique seen force yépp pour ngeen xam ni lii léeg la ndono la du fi jóge ba mukk fekk yàlla jóge fi du fi jóge te yàlla du fi jóge inna allaha xayyun laa looloo tax nag mu nekk liggéey bi ñor ko mu ni jàkk ji dañ ci taxaw jàkk ji nag du rek jàkk julli kese allahu akbar salaamaaleykum kër la goo xam ni day tabax nit daara ji dekkiwaat jàkk ji dekkiwaat na na daara ji doon jolle ci jamono maam alxaaji malik nga xam ni ak sëñ Babacar Si nga xam ne ñoom góor gi Cheybatu Fall a ngi fi woon góor gi sëñ Alioune Gueye a ngi fi góor gi euh, euh, euh, góor gi a ngi fi woon sëñ Birahim Diop a ngi fi woon sëñ Babacar loolu la bëgg daara ji mel moo tax jamaatu nuur al sunniya na leen vous avez du pain sur la planche ñun ñëpp nag ñu ànd ceeg yéen loolu la bëgg ñu xam ko ci bés bi xam ni relance moo am renaissance moo am mm-hmm. Mm-hmm. revivification moo am mm-hmm. waaw moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne woon inna allaha yab'asu a ra'si kulli qarnin man yujaddidu diinahu aw amra diinihi nee na nee na cent yu nekk siècle bu nekk yàlla dana yebal koo xam ni day ñëw dekkalaat li nga xam ni dafa xawoon yonjax ci diina ji xawoon néew doole ci diina ji loolu ñooñu di ko di ko yeesal yal na ci yàlla boole sëñ Babacar Mansour mi ndax bi bàyyam maamam demeek léegi mi ngi toll ci cent ans daanaka 1922 te ñu ngi ci 2020 kon dafa mel loo xam ne daf ci wutu maam Cheikh Alxaaji ak baayam yu baax ak magam yu baax yi ànd ceeg rakam ju baax ji di sëriñ Maodo rakam ju baax ji di sëriñ Babacar Abdoul Aziz ak ñun njaboot gi indiwaat li nga xam ni moom la yàlla wax ci suratul jumaa huwa alladi baasa fi l ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal xikma xam-xam bi ci la la science et la connaissance doit être dans le cœur et au cœur de, de, de, la religion islamique et de toutes les religions d'ailleurs du monde céleste waaw même ñi nga xam ni euh, matériel rek la ñu jàng ak matière nekk matérialiste xam-xam moo leen di moo leen di niital seen yoon waaw moo tax seen tur wi allahu nuru samawati wal ard masalu nuurihi ka mishkatin fiha misbah almisbahu fi zujaja azujajatu ka annaha kawkabun durriyun dirriyun yuqadu min shajaratin mubaraka zaytunatin la sharqiyatin wala garbiya yakadu zaytuha yudi walaw lam tamsasu naar nuurun ala nuurin nuurul ilmi wa nuurul xikmati wa nuurul maarifati wa nuurul yaqin yahdi llahu li nuurihi man yacha ku nekk nag di entraîné wu ci loolu sax ci yoon wi incha allah yàlla dina la may leer kon seen jamaa bi yàlla na ci leer sax comme ni leen ko sëñ Babacar woowee sëñ Babacar nag loolu la ñu woon kon nañu xam ni yëf su jumaa ji demoon ba mel ne jamaa ba taxaw itam ñi mu bëgg a def jamaa dëgg-dëgg mooy jullit ñu fay jullee di fa jànge di fa sowe di fa yendu di fa fanaan góor ñaan jigéen ñi ñépp nekk xiyaarun min xiyaarin min xiyaar kon nag loolu mooy di nga xam ni moom lañ doon waxal sëñ Babacar Mansour dafa bëgg daal ñun ñëpp ñu àndandoo moom jógandoo topp ci gannaaw te inam yàlla nee na yaayu la dina amoon atiu allah wa atiu allah wa atiu rasul wa ulil amri minkum defe naa noonu la waaw te yàlla moo ni sa njiit sa kilifa yàlla nee na bëggul dis indiscipline bëggul anarchie bëggul distraction ci œuvre bu rëy bu mel ni liimaan ak lislaam ak lixsaan ak lixlaas il faut ñu am ci njiit moo tax suuratu alxujuraat wàcc يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أي مخافة أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون kon nag sëñ Babacar loolu la ñu war a xam ci moom xam ni incha allah dafa ñëw pour li fi mag ñi bàyyi woon yëpp mu takkaat ko yëpp nekk benn ba Tiwaawan dañu xamoon dantan continuer di sax ba dugg fu nekk ci àdduna bi yàlla nañ ci yàlla dimbale te xam nañu pas-pas baa ngi fi Euh, élément yu baax a ngi fi acteur yu baax baax a ngi fi waaye nañu fexe ba benn distraction dara duñu distraire loolu rek lañ doon ñaan di ko wax ci turu sëñ Babacar sëñ Babacar nee na nag jataay bii mook sëriñ Maodo ak sëñ Babacar Abdou ñoo ko waroon bokk waaye yéen njaboot gi fu ngeen toog ñoom ñëpp a nga fa ku ci nekk rek xoole na la jëmm boppam te wax na ko léegi ku ci nekk sëriñ la la jàppe ngir yàlla ak jëmu Cheikh Al Hadji Malick ak maam yu baax yi àndoon ak moom nga xam ne ñoo def ñoo ñoo samp samp bi jiitu tey di dikk te nee na waroon na fi eh, am ngeen mbokk yu fi waroon ñëw muy Serigne Chamsoudine Ndoye bu bàjjen umu xayri si Mali waroon na fi teew mu di Serigne Abdoul Aziz Touré bu bàjjen Aïda si Malik di doomu eh, sama baay Cheikh Mouhamadul Hadi Touré Chamsoudine di bu doomu baay Alxaaji Amadou Assane Ndoye yaayam di doomu Cheikh Alxaaji Malik sëñ Moustapha si ñu naan ko góora di doomu maam Mor Xujj si ak soxna na fi sëtu si ñëw ca Mbir Kilaan waroon na fi teew seen mbokk tam papa Sarr bi doomu soxna Rokhaya dafa nekk ca France ca tugal ak ñeneen ñoo xam ne ñëpp ci njaboot gi la ñu bokk waaye ñooñu sax seen wéradee tax mu ni leen mën ngeen toog rek ñun ñëpp ñu wutu leen jigéen ñi sax muy soxna Safeetu Si bu sëñ Babacar soxna Aminta Si bu sëñ Babacar soxna Daba Si bu sëñ Babacar nga jóge ca tabaarakallaahu ñëw ci néegu Baay Alaaji Abdu ku mel ne soxna Umul Xayri Si ma fay taaw ak soxna Ayda Si ñoom ñëpp ak seeni rakk waroon nañ fi teew soxna Safiyatu sa Habib waroon na fi teew waaye ñoom ñëpp itam liggéey bi ngeen nekkee fii ci barab bi pour euh, taxawala taxawalaat ko ci kanamu ci ci sëñ bi moo leen tëye ca kër ga ñoom tam muy def liggéey bu mel noonu fi bu mel nii foofu yal na yàlla euh, jàppale sëñ Babacar ci yéene ji mu am ak jamaatu nuur ak ñun ñi njaboot bi guddal fanu sëñ Babacar ba liggéey bi nga xam ne mi ngi koy sémb ngeen taxaw ci wetam ruhamaa baynahum ji yàlla waxoon ci muhammadun rasulullah walladina maahu lamb leen nekk mbub moo xam ni